salari jiin bismillaay ma dee door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba na siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow lamba ngi nii omix dimanche bee passé lamb la woon dimanche bi lamb la dimanche bee passé na kuy ñàkk kilomètre gañ ay lamb bamba daa mel ne noonu bamba lanjang ngi noonu ko gis ama gis lanjang ñi ngay gis xorom sa dugg. ña ngay compter nit ñi war a dugg. waaw c'est important de. saa boog la ak noonu gala jaa dugg omi. gala jaa dugg jëlal ma ah gaal bu bu jëlal ma sa xorom ngay dugg. xam ngeen xorom. Bamba. lu saare nga ma ngay dugg ah. ey làmb bamba ey làmb dimanche dafa neex trop nga añ bu neex naan sa lewal deuxième daa jàpp daga dak mu lay wan sama ginnaaw ndeysaan Bamba tey micro sans fil laa indil Babacar waa micro sans fil Eumeu Sène ngeen topp ko Pikine ngeen topp ko mbaaw ba Pikine ba Estade muy nuyu muy nuyu omix mi newoon ci micro bi doxal bi nice na Bamba ci caméra bi fe ma andoon faak waaye Eumeu Sène a ngi noonu maa benn butéel bu weex ak Abib Ndiaye mu yore benn leket waa ndeysaan waagaan saa bokkal am na lu mu yor lii mu yor nag ci xëddeen lay jóge ci àll ba lay jóge Tapha boo xoolee moo duggee gauche ama seen duggee droite Tapha moo njëkk a dugg waa tafaatin moo njëkk dugg dugg na bu yàgg Eumeu seen day door a wàcc day door dugg si wàccagul oto bi ngeen ñuy topp ci Dakaractu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen Omix maa ngi lay nuyu Omix ma sa coono daa mel ni sonn nga de. sonn naa Babacar Babacar lii balaa nga koo xam rek nga nekk ci. waaw lii mooy làmb. waa lii mooy làmb. liggéey bi yombul. yombul de déedéet waaye tey nag damaa gis Eumeu Sène mu indi détermination bu mat sëkk Babacar. Eumeu Sène ci làmb noonu la ma sa doxee. waaw Eumeu Sène moom par rapport ak làmb. lamb bu mu ñëw day indi détermination. détermination laa ci. maanaam combattant la quoi. waaw Babacar gis mbaaw dafa mel ni bëgg nañ combat bi Babacar. waaw mais amul leneen lu dul bëgg combat bi parce que ama seen tey combat bi bëre combat bu mu mës bëre ci carrière mësula laal ak Tafatine. waaw lool la combat jànq la moo tax nag Babacar day neex waaye liñ ci foog boo moytul du ci am Babacar. waaw mbir de mën nga koo foog man ngaa seenu weer mu kaamil. waaw. parce que man ngaa seenu ku la dig itam dig ba tardé. parce que Babacar bawol bawol bi dama xamul fu mi ama seen noonu day omix. lom de tay Singa andak mag ya Papa Ngom wa ginaaw ray wa Pikine wa marsa Savanel wa wa tali bu lepp ci Pikine ma ngi nonu neena tay ñaari mbeur yëpp cosaan ñooy bëri waaye saa bokkal moom mom yor nanguwut mu lal suuf mu ngi ko tete bu dëgër mom nak bu ñuy wax bras droit Eumeu sen ki moy bras droit sa bokal mom bras droit Eumeu sen bes koy wër ci nañu setti sa bokal rek non Lagne Niang mag walamu Sène la wala muy frère am xam nga Lagne Niang ak Eumeu sen comme nit ak kum bokal nday ak bay manam bo beugé deg dëgg mom bo manam ay mbiru Lagne ak euma comme ñaar ñu waaye gis nga lolu lolu sa ben ñak la dañ ko mouré ak benn morceau ben malikan wa noonu malikan la malikan la sa bokk la ko yor waaw li li saru xeden la non kii sax doo ko tudde xànc ndax xànc ci guy lay jóge kii nag ci ron la mën a jóge ak ron bu dee xam nga garabu ron waaw foofu la mën a jóge walla xëddeen yooyu lay doon waaye xànc xam nga guy moo koy am xànc la ñuy takke dugub waa xam nga man kaw ga la dëkk ak yaay ca bawal waa yow xam nga booy pikin nga xam ma booy mbaaw waaye booy town waaye booy town yi nag am na ñu ci xam àll ba de non Eumeu Sène déggoo la ñaari mbër ñaari mbër yu ñooy bëre tey xam nga Mor dana fecc Ama Baldé dana fecc Boy Niang dana fekk Mohamed Ndao Tyson waaw loolu de bu ko defee tey wallahi waa Pikine danañu kontaan loolu loolu ci loolu bu amee Bamba waa Pikine daañu bëgg ndax nag Pikine fi nekk nii dañoo soxla cohésion doon benn Pikine fi nekk nii dañoo soxla ànd bokk ndey ak baay effectivement ay nit buñ bokkee lañu mën ta xaajoo Bamba nañu ko jéem a Ama ak Boy Niang dañ cee toll. wallaahi Ama boo xoolee li mu def ci carrière am dootul def lu ñu toll te bàyyi. bu fekkoon benn victoire rek mu ne ko waa des dama koy jël jox ko sama rakk Ama Baldé. waaw xam nga loolu wax ju kon man suma sañoon daal ñi leen wër wala di leen jàppale nañu fexe ñu nekk benn rek xam ne fi mu ne ay adversaire la leen boole saa bokkal yëkkati na ko ah ama Amadou Diouf jàmm tey jàmm balaa xew faw ñu tàqali ko balaa jàmm am faw tàqali koo am. mais fekk taqalu ko taqaloowu na moom ma dul jàmm mënta xew Eumeu Sène wàcc na de Bamba Eumeu Sène wàcc na de mag jaa jiitu Papa jiitu boo xoolee li mu xoolee li mu sol Eumeu Sène li mu sol li mu sol Eumeu Sène li mu sol non Eumeu Sène xam ne nag joolaa la ak séréer bamba maa xam nga ci moom loolu kii kan la ana Ibou Sy Ibou Sy dugg bamba may ma ni Eumeu cosaane na tey de am laa ilaha illallah l'homme de taille Singa ngi noonu caractère ba yokku na caractère ba fii moom li muy bari bëri reetaan tey reetaanagu fi li bari bari bëri reetaan reetaanagul tey li muy mën a mën a ree tey reetaanagul Eumeu Sène ak la njang ànd bu yàgg la comme Mbaye ji fekk Youssou Ndour ñun ñu dugg am na ñeneen bàyyi ñu dugg ñu dugg ñu ngi nii waaw non Dakar ak ti li fi xew day xew fenn Dakar ak ti ngay wax de waaw loolu loolu deete su ko fàtte waaye lii itam tey des na ko fàttaliku maa ngi seen mag gi Papa Ngom ama seen na nañu puus mu dugg ama ne na gaay puus mu dugg moom wax ji jeex ah oui am na nañu pousse mu am surplus moo nekk ci biir ñaanal dix-huit yëpp gis ngeen ñëpp la ñaanal waaw mais nekk ci biir mu des ñaar foofu ñu añ ñu génn ngeen mën a dugg ñaar ñaar la a 16 a 16 wax na ak police parce que gémi yi faw nga respecté norme bi ñu leen jox ñoom la ilaha illa li béjjën am nga jàmm yàlla na sant yàgg yàlla na sant yàgg du mën a ñàkk Bamba bu xante bi mënu cee ñàkk ku bëgg akara ñeme kaani c'est bon ñu dem ñu dem jaara baax jigo jigo jigo sama coach rek moo ne coach bi lay jigo dem na coach sama entraîneur sama entraîneur waaw waaw moom la Eumeu Sène dugg na ci arène bi Eumeu Sène dugg na ci arène bi Bamba Tapha Tine mi ngi noonu ci pom ci omix ngay gis noonu image yi Tapha Tine maanaam baa ngi déyanteeg moom xam koy déy nag waaye Tapha daal mi ngi noonu di lekk pomam taxaw ci kimikaayam ay làmb Dakar ak ci waay cummukaay Tapha Tine ngay gis noonu wan na bitéel yi omix ñoo ngi cummukaay bitéel yaa ngi noonu cummukaay Tapha Tine ngay gis noonu maanaam baa ngi toog ay yor di liggéey mi ngi noonu toog yor ay bagage di liggéey Tapha Tine noonu ngi koy sotti mu ci loxo ya ma loxo Tapha Tine li muy diwoo lu muy Tapha Tine am na lu muy ma ngay reetaan ndeysaan Tapha Tine il est ci bis bi de wax dëgg yàlla ngeen am image noonu ci Dakar ak ci Tapha Tine ngeen noonu am na lu ko sotti ci loxo yi mu daal koy diwoo mooy waay nga tuus maa ngi lay dellu siyaar sant war yàlla waaw ah, mais fii ñu combat daan toll rek adversaire bu ne am nañu ko waaw amul ragal. li bees na gàttankaloo leen ci combat bi bàyyi na gàttan ba. incha allahu rabi nañu ko daan rek dem ñibbi. ñu ngi leen Eumeu Sène moom xeex bi bi loo gis si loolu. waaw Eumeu Sène moo dàqa beneen moo dàqa xeex moo bu doole moo mën waaye maa dem ñibbi wacc ko fi incha allahu ah. ah non du yàgg ñaari ndaanal la du yàgg waaw dañuy daje rek waaw pare nañu tous les côtés li des mu ngi ci loxol yàlla waaw waaw te incha allahu rabi ñoo lay jël ndam ah mbay ndawaan bawul mbooloo ak noonu moom may coach Tapha may mooy manager am sangu ay ay bagage am noonu da mo xol ama sel combat bi combat la bo xamanteni combat capital la ci ki nga xamanteni ni moy tafatin parce que tafatin Tine fi mu ne dara bawal parce que 2013 bëri won na titre roi des arènes contre balagay Gaye ñak ko kon fi mu nekk nii Tapha Tine moom titre roi bi la teg bëtam te pour mu yegg fa nag il faut mu wane fii preuve waaye nag ci ki mu bëgg wane preuve kookoo ma jaaxal. ay na ci luur aay na ci xeexkat ndax dafa mën a bëre bis bu ne bëri na ko bis bu mag bu ne am na ko moom Eumeu Sène waaw. yàgg naa bëri bis boo xamante ne ak lu lamb dootoo fàtte keroog sa Sédar Senghor bésam ba ak Gris Bordeaux xeex bu métti ba ba mu taf fiwum bëri bëri ba daan daan ba lamb ko fàtte keroog bésam fii. moom ak ki nga xamante ne mooy bombardier bi muy jël couronne bi ak lu la am doon ko fàtt yooyu yëpp yooyu yëpp ci bëri la ko gagné te ñooñu ñëpp ay luur lañu tey bis bu neex mooy am fii ci biir arène nationale te ci bis boobu am na yeneen xale yoo xamante ne ay ndaanaan lañu Coly Faye numéro 2 Thiatou Daouda Fall Marley Mbaye Gouye Gui ah Weus Jambar ndigal ah ki nga xamante ne mooy Jacob Baldé ah ak ma Parara ay combat yu neex. waaw kay bàyyi baal la pour Baye Balla Mbuub ak noonu moo tax amoon na waxtaan bi muy doom ci jaay Samba Mbuub ba léegi lépp di naa la da nga tey ñu mel yaa la tëgal lu wër la tey lu bees laa indi ci kanam tuuti rek gars yi may ma tuuti rek ci kanam rek tey nga doyal ah. tey te sa allah ku la loolu loolu amul barke Serigne Touba. tuuti rek laa indi quoi lu tuuti rek. kese waaw. waaw. sant yàlla. ñu ne amas ñu ne amas seen tafatin. bu waaw waaw salaamaaleykum di nuyu ñëpp di masawu xamal ni làmb ji nii rek la mën a demee mais mun na dàq làmb yi bi passé. non làmb ji xeex am na si bëri am na si daa am koo xam ne Tapha Tine xeex rek mooy intérêt mais Eumeu bëri rek mooy intérêt te Eumeu yàgg na Pikine yàgg naa nekk si ay jafe-jafe Eumeu génn leen si boo bàyyee xel mais tey ci si ay jafe-jafe ne dañuy xaar ba xam Eumeu boobu mooy ñëw wala Eumeu boobu du ñëw mais bu xeexee dina gis bawol bawol bu dégg bawol bawol bu xasee ba naan si masin u calcul mënatoo koo nax maa la wax loolu moom laa lay wax na ma la bawol bawol bu xasee ba naan si machine mënatoo nax te daan naan si xeex. hop hop hop. dëkk nii na. waaw booy c'est vrai. moon. ñu nga fa. ñu ngi si jàmm. waaw ñu ngi alhamdulilah. ñëwaat nga arène nationale de bii mooy ñetti yoon nga fi ñëw. waaw macha allah rek alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla mi nga xam dara teewu ko yàlla ma ñu ndam ndax ñu ay doomu aadama la rek ma ñun mënuñu xamuñu ñu ñaan ci yàlla yàlla ma ñu ndam dafa mi nga ni tey sa xel dal na ci moo non tafa ku ànd ak moom sa dal comme la ma la waxoon rek amu lenn lu may lu may tiit xam nga ki ko seqal non bo am waaw am moom xam naa ko bu baax mënu maa jaaxal xam naa ko bu baax. ama seen mënu xam naa ko bu baax. booy bi xam naa booy bi xam naa médecin te man ki ma indi wóolu naa ko. wóolu moo tax ma ne maa ngi ñaan yàlla ba nga xam ne dara teewu ko yàlla may ma dem. kookooy mën a am na lu muy demandé ci géew bi Ndiaye Tine ngi doon rakk ji am na lu muy laaj. waaw moo na dem na ki nga doon waxal léegi Bamba mbaa xam ne kii mbër mu mag la bëri na simple bay bëgg dee dem na ànd moom kookoy Sulay Baabu laa ilaha illallah ñu nga ca géew ba eh lii lan la jëlal lii yow fi mu door oom yi lay tibb jox ko lay tibb jox ko Sitor a ngi wax ak moom ne na ko forgo nga sànni ko ndànk moo la ngi for galas gi di ko génn géew bi dafa ngi noonu arrière kaay bamba ama seen a noonu ama seen bu tay singa Eumeu bertai bu Singa Kaay Bamba Bamba jëlal Eumeu Sène rakiji, rakk ji garam bu la sol rak ji aca Aliou xool Xaadim Ngom li mu sol xool Xaadim li mu sol xoolal li Xaadim Ngom sol Eumeu Sène a ngi noonu Eumeu a ngi noonu kiloot la sol tey tey dellu na cosaani séréer dëkk rakk ja ngi koy sotti bamba rakk ja farus rakk ja koy sotti rakk ja ngi koy sotti di wax ak moom xaadim a ngi koy sotti wax ak moom xaadim ngom a koy sotti wax ak moom xaadim a ngi koy sotti wax ak moom ama reena oh ama seen reena Eumeu Sène ree na Eumeu ngi ree Bamba Bamba foo nekk Eumeu heure bi lay wax Bamba nekk ci Eumeu ngi ree Eumeu Eumeu yaa ngi ree tànde Eumeu Sène a ree Eumeu ngoog oh l'homme de taille si roi des arènes naan na ca butéel ba ama seen li muy naan kay bamba yim na ma ndax buñ la ko joxoon di naan doo ci naan a ah, war nga cee mën a naan de am na butéel buñ koy sottiwaat am na luñ koy sottiwaat bamba aliou seera sa ngoog ama seen ànd ak papa ngom mag ji ak xaadim ngom xaadim à gauche wala boog xaadim à droite Pape Ngom ñoo ko wër mbokku ndey koy jur waaw waaw ëmma ngongu day ree rek ëmma daal day ree day ree day ree rek ëmma seen maa ngi seen dudu saane maa ngi nii taxaw laa ilaha illallah Habib Ndiaye ngongu ko koy Habib Ndiaye kii mooy Habib Ndiaye dañoo yàgg laa ilaha illallah cey lamb waaw parce que mbër mu mag la nag ama seen min na fii duudoo noonu le roi Sané yor benn béjjinu kooba le roi Sané ngong kanji kot ci loo ne. soo sant yàlla. su tey da ngaa xeex si wala da ngaa bëri si. non ñaar yëpp lay avec Fra Blanc ñaar yëpp bu ci ubbeeku rek nga def ko. ah. bu ci ubbeeku rek nga utiliser ko. waaw mais loolu la lépp lu ñu war a ñu pare lañ ko lépp lu ñu war rek on est booy bi liggéey li mu war a liggéey yàlla suñu borom moo si des ñu ñee ko ñaan yàlla suñu borom yàlla may ñu dem. kon xeexu Tapha Tine tey mënut a jaaxal Eumeu ci làmb ji. loolu tamit man ngay waxale tamit waaw. Djibril Kane ngay waxal waaw loolu jaaxal ñu danga moom day taxaw ay geste di ko dóor mu koy laal ak ay amabal di ko laal li si Eumeu Sène nekku si adversaire yooyu mi ngi doon am mi ngi doon am adversaire waaw. ay mor ay morceau yu verte Bamba yaa ngi xool morceau yu verte yi mbaa ay morceau yu verte. ay morso yu vert waaw kañ ngi koy def loo ay étirement waaw lii mooy dangay ngay teel a yee sa yaram bamba xaadim a ngi noonu waaw waaw man de xaadim li mu sol sax xaadim de li mu sol garaaw na lool xaadim xaadim ci loo ne li nga sol ni lan la loo ni ndam rek la sol eh way ndaw xaarim ne na ndam la sol waaye sol ndama neex saa bokkal nee naa la kii mooy bras droit Eumeu Sène booy wër bras droit jàppal saa bokkal laa ilaha illallah kaay bamba xës si loo ne Diko maa ngi lay ziar. maa ngi lay tay ndax ko zalika. am nga jàpp. waaw sant nañu yàlla bu mais tey Djigo dama gis sànq bi ngeen di dug dama am lu ma seetlu da nga des ci ginnaaw ama seen gestu insisté na sama coach su la day dugg na dugg. mu mel ni nga dugg amal na ko importance lool ci stade bi. waaw dafa yàgg man moom depuis bul faale ba tey du tey man ak moom waaw. loolu moo waral loolu. waaw parce que comme waay coach am man it muy suma mbër. rafet na fu mu taxawee rek geesu gis si man gis ma mais waa ji mën naa ni leen jaaxal tey Tapha Tine xam nga lamb lamb la rek ama seen li ma koy wax toujours moom laay waxat war na fas war na mbaam buruxlu na gaynde kon waa ji waruñu mën a indi lu mën a jaaxal dara jaaxalatu ko daal non non non non non ama seen champion d'Afrique la nag te naa ku ne desitu lambam waru ba Tapha Tine waru ko mën a jaaxal aha koko coach su jigo xali xali ci lone mais ñu ngi lay fay maa ngi lay ziar maa lay delo ziar gis na mburu Pikine buy bare nga tak ci rib barki dem yak Ama balde la won tay yak ama sen la woon ëllëg kenen ak yow ci Pikine ah mais Pikine lañ dëkk nak fi lañ magge fi lañ amé lepp Ama suñu rak la ñu bok ak mom day ak bay muy xalé bu am jom di xalé bu am ngor di xalé bu mën teranga bu xam lu mën lu limu limu jige barki dembu yàlla mooy joxe ndam moo ko xañ yàlla na fa yem te li ne suñu kanam yàlla na ko yàlla moo taliwaat tey nag Eumeu Sène a xewle ki xewle nag muy Eumeu Sène yàlla na ko yàlla may ndam ci barke Seydina Mouhamed le la premier janvier Boy ñaa moo xewle moom it yàlla na ko yàlla may ndam ñuy ay nit yu am jom Pikine fii ñoo bokk ndey ak baay ñun on est ensemble c'est la famille ñun kenn mënuñoo jaxase kenn mënuñoo boole parce que booy ñaa ak Ama ñoo bokk ndey ak kii mooy seen mag Eumeu Sène loolu la yàlla dogal man nag Pikine ma ñor man nu ma men Pikine la lu ma am Pikine la moo tax képp kuy bëre tukkiw ma voyagé wu ma ku ci am bis dinaa ñëw taxaw la ndax deretu Pikine rek ama ñor dara ñoru ma am na solo xaali kontaan jërëjëf ñi ngi bég amal jàmm jërëjëf di ñaanal yàlla nag Modou Lo yàlla na ko ndam li jik nit ku baax la yàlla na ko ndam li jik ci barke Seydina Muhammad nit ku baax la nit nag bu xamee lu baax di ko wax di ko def da nga koy ñaanal yàlla làmb la doon bëreeg ama yàllaa doon joxe xañ ama jox Modou Lo kon ki mu jox yàlla na ko jik ci barke sëñ Bamba koo koy xaalim <laughs> ndeysaan xale koy tay bu Serigne Babacar ndeysaan xale yi dañu ko jox tradition manager Balla Dièye manager Samba Mbow jàkkaar ta dafa leeram koy sotti mag jang koy sotti dafa tina ngok amna lamuy tek muy tekki ci ndigli wala bok day takat sengoor yi ndaysaan tafaati Tapha ngi noonu le géant di Bawol koy sotti la ilaha illallah Tapha Tine ngoog Cheikh Omar Tapha Tine ngi noonu Tapha ngi noonu Ndiaye Tine ngi sotti moom itam mu ngi wax ak Ndiaye Tapha ngoog gaay Paalo ngi nii Paalo ko laaj rek defena yow itam saa yu Pikine jógee nga jóg. wa loolu moo war man do pikin la tay direct emotional tay man amul dul pikin tay numa mel pikin la lu don pikin la man day laaj heure pikin sa xewle bu pikin soxla ma jox ma jox pikin limu mom ndax luma don tay pikin momako def tay bu démé ci archive ci ginaaw ci ginaaw ginaaw ay lambi Eumeu Sène tey jii bu ma gis dina ma la fi def bu fi gis du ma ne a jàmm ndax booba nekkagul promoteur nekkuma dara ci biir cumi kaayam laay nekk kon tey ku ma gis fi daf maa war a gis kon tey bu Pikine soxlaa dama war a taxaw ci wetu Pikine di ñaan yàlla yàlla may ko ndam lu sedd buy ci kaw Tapha Tine am na solo borom la premier sa borom la 7 janvier waaw le 7 janvier ñoo ngi koy wàcc diggante Ama Baldé Gris Bordeaux ñu ciy woo ñëpp di leen ci woo yéen ñëpp xam naa fekk semaine prochaine dinañu tàmbale promo combat bi incha allahu rabbi pour war a dem le 7 janvier war ci waajal Ama Baldé Gris Bordeaux mu doon feet nag feet bu rëy mu nekk drapeau Mamadou Gueye docteur impôt domaine nekk président AS Pikine ñu war ko ci delloo njukkal war ko fa sargal incha allahu rabbi pour le 7 janvier Mama Lamine double moteur tam war see bëre ci jour boobu yow xam nga ni mu demee lépp waa ñu ciy woo ñëpp nag yaa ma a maa gën a bég Babacar kontaan Sa Thiès Bamba maa ngi noonu ci géew bila la jëm maa ngi noon ci géew bi la jëm toj na galaas moom itam xanaa galaas gi dañ leen koo digal ñoom ñëpp tafaatin lim def fii ci galaas ama seen ñëw feelu ko kii mooy tëgal ama mooro ngi Tapha ngi war géew bi soosey toj galaas gi Tapha ngi daw soosey toj galaas gi soose galaas goog du neex a toj de xanaa boo ko doroon ci suuf sax waaye biir boo ko doroon ciy xeer Tapha Tine ngi ci géew bi jamono yooyu Marley dugg si na ci géew bi Weuz Diambar dugaat na ci géew bi Weuz Diambar a ngoongu kaay ma xooli Weuz Diambar borom tànk bi Sidike Ngok Sawru Fall ndaysaan yéen a ngi si Dakaractu wës wës Ababacar xam sotte ko ndaysaan daam lu muy sotte koo ji cey lam wës jàmbaara ngi noonu waaye Coly Faye ngi di waaj a dugg ci géew bi Coly em ngi waaj a dugg ci géew bi Weuz Diambar a ngay sotte ko Coly lal na benn percal bu weex taxaw ci Cheikh Omar di ko Brosse ngi ñëw c'est que ni mu bëree Cheikh ma dafa xaw a jaaxal benn moment dem na ci médecin yi arrêté combat ndax tànk bi mu bëree temps gis naa mu tëdd ci suuf yooxu sax def na ko moom was jàmbaar bu yaraax was Ababacar was félicitation waaw merci beaucoup ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax a da nga andiwaale blessure bi wala si biir combat bi la la dab. waaw blessure bi dama ko bëre waale moo tax bëgguma jël benn initiative quoi te combat bi du woon sama combat ay combat waa yaraax la woon moo tax ma teg ko ci yoon di sant bu baax Saataala Mbaye di sant bu baax Saataala Mbaye wallaahi azim lamb ji moom laa ko doon bëreel moo tax bëggoonu ma bëggoonu ma def lenn loo xamante mooy loolu. blessure bi fan la la dabee fan la la dabee ci entraînement wala. waaw dama see gaañoo entraînement waaw. Marley ngong ci géew bi Marley nekk à gauche Coly Faye à waaye ñoom ñaar bëri wuñu Coly Faye kee lay bëreel Thiat Daouda la war a laalee léegi ndaysaan Marley ak Mbaye Gouy Gui ñoo war bëre ndaysaan lu xew fee Seexu Omar Seexu boo bëggee dégg-dégg làmb ji tey neex na nit ñi bari nañu animation am na cosaan génn na Eumeu Sène tey li mu fecc fecum cosaan la fecc mu yàgg a yàgg te buñ beneen demee ba si kanam dinaa la wax ñi mu rendre hommage foofu ci feccam mi tey waaw Tapha Tine cosaan la feeñ ndeysaan ndeysaan Laisan tia Daouda Fall Ngongu yenn benn ndaa ànd ak mbës tama la yore tama Ya ngi gis tama bi Cheikh Omar tama ñu ngi waxtaan ñu ngi ñu ngi waxtaan oh wax bare cey loolu kaay ndeysaan Mor Tafa ñu ngi koy sotti rek. Tafa ñu ngi koy sotti ba tey. xool glace kii magam la kii magi Tapha Tine la. laa ilaha illallah cey Omar waaw ñu ngi koy sotti rek Omar Ibou Fall wax maa liggéey jël laa wax yow tamit maa ngi nuyu dañuy lamb maa liggéey jël mais glace gi daa bari tey waaw glace dama baax glace dama baax ama seen tamit ama seen tamit andi na day toppandoo day toppandoo waaw. fi mu nekk nii lan ngeen yëg. lan ngeen yëg fi mu nekk. waaw dara comme ni ñu daan yëg rek sant yàlla. waaye à part ça moom dañuy la ko quoi liggéey nañ leen war a liggéey ànd ak suñu bopp. ñaan yàlla moom mënuñ may moo ci des. waaw boo defee li nga war a def ànd ak say bokk moom li ci des yàlla suñu borom mooy dogal dañu ñaan dogal moom ànd ak ñun muy suñu mbégte ñaan dafa daan ko jëlee bi sa rëcc bànn benn werante barke Seexul Xadiim. Cheikhou mise en trait Cheikhou Cheikhou mise en trait Cheikhou Omar lii lan la Cheikhou Omar lii la Cheikhou moytul Cheikhou lii lan la laa illallah laa ilaaha illallah lii de yàlla bu man lii wóorul de. hop hop hop hop Cheikh Omar Cheikhou maa ngi koy bàyyi xel. Cheikh Omar xool papam fi mu toog moor kuris ga noonuy wirdo kokoy papam kokoy papay tafatin a ah, way kokoy papam mu ngi génn ak cumukaay li ah. moom Fils maa ngi lay fay ci maa ngi lay fay moom Fils di am mbégte mu rëy ci gëjoon naa waaye bi ma ñëwee sama xol dafa sedd ndax réew mi bi muy am indépendance 1960. ñetti journaliste yu góor a fi nekkan ak benn bu jigéen kon tey bu ngeen demee di liggéey liggéey bu rëy bii ci sport di ko def ci diine ji sunu xol sedd na tey nag bés la boo xam ni bés bu mag la ci sport ñuy ndokkeel président Macky sàll mi ñu defal aareenu 32 milliards di ko ñaanal Sall ak gouvernement am yàlla sunu borom guddal fanam may ko wér. tey nag combat bi ci diggante Eumeu seen ak Tapha Tine bu neex la suñu xeexee mu jeex buñ jàppantee mu jeex. am avantage ci xeex bi. xeex bi nag Tapha moo am avantage ci xeex waaye Eumeu Sène moo am avantage ci jàppante bi ci des nag Lat Diop lañ ko tuddee muy ministre sport tey doon premier sorteem ñuy ñaan yàlla na yàlla jeexal lamb ji ci jàmm. Lat nag dafa doon njàmbaar doon ngar mi ndax Lat Diop Aly Binta Ma Samba moo rey commissaire bi ci Tëngéej moo jur allaaji Diop mu jur Codé Diop Lat Diop Amadou Ba maamam moo dem ndar ñu jox ko Titin Dieng mu am ci Sadio ba benn bu barkeel bi mu am ci Saad bu ak Lat kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko lii jik jërë ngeen jëf. jaajëf jaajëf Pell Khadim. te ah booy te rek jarul te laajte ñun ay amateurs des amateurs tey. ñu ñëw si lamb ji parce que lamb rek lañ bëgg. di félicité Baye Ndiaye mi tëgg lamb ji tey di gërëm ñi lay seetaan ñëpp si internet bi di la encouragé yow xale bu am xam lamb nga. et puis tey bëre bi tey combat bu neex la parce que tey combat yu ndaw yi sax ñoo dàq yu ne nee na grand combat bi parce que Baye Ndiaye ku xam lamb la.

loolu la ñuy xaar tey ak Eumeu Sène ñu bëre ko ful ak fayda jom ku war a daan daan ku war a daan daan mais maa ngi encouragé di courage. maa leen di fay. waaw di leen sant bu baax a baax di kontaan ci làmb ji ndax xam naa ne ñaari mbir yi bu ma gisee ku nekk entraîneur kon xam naa ne kenn du ñëw pour tricher ku nekk dafa indi forme.

Tapha Tine mun na xeex Tapha Tine mun na bëre attention gars yi fu ñu foog ne Tapha Tine mënul loolu upp na bëram upp na loolu donc ñoo ñaar yëpp ay bërekat lañu ay xeexkat lañu. programme tole ma nga programme tol fu lutte sans frappe dañ ci ñëwaat dañ ci ñëwaat parce que xam nga ne fu ñuy dem di euh, Dakar dañu wara def ay activité waxtaan ak jeunesse yi waxtaan ak xalé yi

baax a baax waaw euh, doomu Géejawaay ko tëgg ay doo ñu tuddee ko doomu Géejawaay ay doomu Géejawaay di ko bëre Baye Ndiaye tëgg làmb ji nekk nekk doomu Géejawaay jël drapeau tuddee ko ministre Lat Diop ministre des sports dekk doomu Géejawaay Marley war cee bëre di doomu Géejawaay Caatu Daawda Fall war cee bëre di doomu Géejawaay ndigal war cee bëre muy doomu géeja ma ca pare laa war bëre muy doomu géeja waay kon ñi ñaan yàlla yàlla na yàlla may ndam xale yëpp yàlla na yàlla may ndam champion bu mag bi ñëw na muy Balla Gaye 2 doomu Double séeri bu di bàcc li Baye Mohamed. ngeen ñuy gisal noonu Bamba mu ngi noonu toog di wuy téléphone Bamba ànd ak sérénité bu mat sëkk. ay làmb Bamba waaye Bamba tey umat seen yemu def ci tànk yi maa ngi koy soog gis mu indi ko Bamba ay làmb ay làmb mu ngi wuy téléphone ànd ak détermination bu bu mat sëkk Bamba ay làmb. ma ngi Pikine ëmb waaye ñu ngi gis ni uh, Balla Gaye mi ngi noonu ci làmb ji ñëw e làmb Bamba yaa ngi seen Pape Ngom noonu bamb amoon seen ngay seen nonu bamba bamba ma seen a ngi noonu toog ak ay bouteille bamba tay gis na fi 10 litres bamba gis naa fi diwlin butéelu diwlin Zador Bamba gis fa Sibeli Bamba gis fa pom ay lamb Bamba laala baaxu góor la maa ngi gis butéel yi Bamba gis ay 1 litre ay 2 litre Bamba waaw baadu baadu lamb ji tey ay ndox. mooy que ni yow xatax xatax la yor xatax battu battu la yor la yor lamb. waa jàng yor ab benn battu duñu xaatim ak ay alxuraan. ak benn bant toog ci cumukaay la mi sa cumukaay la bamba maa ngi seen lanjeg ak ah, kii bu ba mu sol ay lamb ba taw feex incha allah waay taw feex de rek sant ñëpp gars yi gis naa nuñ ma yéene won ndam li waa Pikine di leen sata bu baax a baax a baax di ñaanal ama Sène ndam Boy Niang combat bi mu jëm tamit yàlla def mu dugal roi des arènes bi Pikine ci barke Alxuraan Pikine ñëpp benn la waaw di ñaanal Ama bu baax a baax gis naa taxawaayam ci combat bi. fi kañ lay laaj. laajteewu ma kenn saa waay man damaa feebar man damaa feebar laajteewu ma kenn. ey eh, lamb Bamba. ba Eumeu Sène ngay bokk su di njaam njaabu golo Bamba. Eumeu Sène ngay box Bamba maam Eumeu Sène ngi noonu rango suru cosaan ya doxantu di sànni ay góor droite Eumeu Sène daa mel ne indi ci lamb ji ay lamb Bamba souplesse souplesse la indaale Bamba Alboury Kewel ay waaj a sëgg noonu Bamba lamb du ko dax Eumeu Sène la ñuy gis noonu Bamba moo koy jaabante ay lamb la mu takk ca tànk ba Bamba mbaam ma Eumeu Sène ngay seen noonu mu ngay njaab di ñëw ay làmb ay làmb Bamba làmb ji mënut a ñàkk xeex arbitre bi ngi leen di wax bëre leen bëre leen bëre leen laale baaxu góor la Alboury tooñ na léegi sànni càmmoñ di leen fàttali Alboury ay ndam rek la fi teg la fi ci arène mi ngi mujj ba rek ak ki nga xam mooy Jara 2 xeex ñu ngi xeex raak raak munul ñàkk munul ñàkk oxo oh, oh, tey jii lamb dox na si ginnaaw Kewel door na ko góos Kewel door na Alboury déplacé déplacement ndeysaan xeex bi la xeex ak Mama Lamine moom Kewel fa la tey ba maar Alboury mi ngi bennal di leewtoo wàcc na saa si wàccee Kewel def retrait de corps tey Kewel tey Albouri ñu ngi bëre ñoom ñaar. Albouri moo leen wan ginnaaw kéwél ngeen jàkkaarloo noonu. ah mi ngi mi ngi door plaqué mboot luy xew. Albouri daan na kéwél. Albouri daan na kéwél. Albouri Albouri daan na kéwél. Albouri ay lamb ay victoire rek la fi tegle Bamba Albouri nee na ñu ko ay lamb Bamba. waa Alboury fu mu jëm Bamba ay lamb ma ngay siif Bamba Alboury ma tas ba tas kiis da tagit tagit tagit tagit ki da da da ki ki dat ki ki dat kiis kiis kiis kiis kiis kiis dat kuus kuus kuus dat das baax dini ragil ki ca ay la ilaha illallah bu bëree mu neex mu bàkkoo mu neex Alboury demal dañoo la nga tuddee Albouri moo am ndam ci kaw Kewel ay lamb tey Dakaractu ay lamb bamba Albouri daan na Kewel jël bu jël bu ko waaw la ko daan nee la douze yaay tëdd loolu moo am tey de la mu waxoon la de Kewel lamb Dakaractu Albouri ngoogu ndeysaan keeg digg géew ba la ko koog suba Kewel lamb Dakaractu ñu dem te ñëw Lassine nee na après. nee na après. ay lamb seen nga ni seen noonu ma ngay ma ngay mën seen nga doxantu ay mbokkam ëmb ko ay seen ngay doxantu ña ngi koy sotti ka laaj ga bamb ay man seen noonu nga seen noonu Bamba Dour nekk ca wet ga ay lamb Bamba man seen a ngi noonu man seen a ngi ma ngay doxantu Bamba man seen a ngi doxantu ca côté cumukaay ba ànd ak trois éléments am wala quatre sax wax di jaabante bu def échauffement am man noonu ma war a ma ngay doxantu maa ngi noonu te làmb Alboury Alboury ñëw na ba ci Eumeu Sène Bamba te làmb da jox suuf si Bamba yaa ngi seen noonu saa boogal Bamba Eumeu Sène a ngay doxantu Damba Bamba ey lamb ey lamb Bamba masih daa bëgg a fecc man seen yaram man seen ngeen gis nonu muy doxantu di wax ak sa bogal nonu and ak serenité cee lamb Sène ngay sarax ay koko Seydou Amath Sène ay koko Mor Ngom a ngi mooy tëggal amat Sène yàgg na ak Amath Sène cey làmb Seydou te ngay dégg galañ bi ngeen mës a dégg. ilaha illallah moo loolu lu mu doon moo loolu ban xeetu bàkk la moor ngoom déggal cool moom béy bu jigéen la boole Pikine daa boole Pikine daa boole Pikine Eumeu Sène ngi noonu wane ne mooy seen Eumeu Sène wane ne wax naa ñoom wax ak waa Pikine ci bàkk bi tàngalal ko kol gi. liggéey ndey doom waay ndey doom am aalu na seen kol gi ñu ko sànq kolu la kolu yaayam la janga janga janga asoom janga janga asoom xaalis inshallah kol gi maa ngay jooy sax na ci liggéeyu nday domba ku lu yaayam la rangoon noonu ey lamb ma ko fay di ma ko ama di ma ko sàcce waaw di kontaan rek ñoom ñaar ñëpp samay rakk lañu lu mu wax dëgg la waa Pikine merewuñ ko na defaruwaat rek ñëwaat kontul moom ak Gris Bordeaux rek yàlla bëri na sutura léppay baax bu soobee yàlla waaw tey yaa ni sa doom sa koppal de mu bëre mais bi ngay ñow nanga woo sax wax tey da ngaa ñëwee neneen waaw noonu la bés bu nekk rek ak nu koy ñëwee rek bés bu nekk ak nu koy nu koy préparé rek waaw yàlla bëri si jàmm yàlla ya defal ko jàmm am ndam si ko ku ndam ku ku ndam bëral sa sama bat la waaw mooy loolu soxob soxob walaay baayam mooy soxob walaay maamam waaw para balay papam waaw doomu gene du jur mus nak waaw amul fen waaw me keroog da nga wax ay wax wax yo xamne ne dañ la dafa rafet ñu bari wax ko après combat bi nga féliciter modulo encourager amassarat wax wax bu rafet rew mi yeb rafet lu ko paté waaw ah, dëgg la àdduna noonu la àdduna amul solo Ama ak Modou Lo benn 6 heures rek benn takkusaan rek moo boole duñu ay ennemis mbër yi duñu ay ennemis ñoom ñoo ko bokk nekk bàyyi fay rooy mooy loolu dinañ ñaanal yëpp dañ ñaanal xol kul ku kër bu koy takk ngemb maa ngi koy ñaanal waaw yàlla defal ko jàmm waa fay rooy mooy loolu. tey looy wax Ama Sène. Ama Sène koy jàmbaar la jàmbaaru bërikat naanaan la mooy loolu Ama Sène mën na bon nii di leen bëre. Ah. bilaay léegi rek temps bi yàggul rek ngeen gis. waa xool leen rek. waa xippi tey xool. waaw day xippi tey xool rek. mooy loolu rek. mooy mooy loolu. borom mooy loolu. waaw waaw kon sens kontaan naa trop. waaw. mais réew mi bëgg nañ la nag. dëgg waaw mooy loolu. yàlla xool rek lay fay. mooy loolu. yàlla xool rek lay fay. waaw di sant yàlla rek. sant yàlla rek di leen ñaanal yéen ñëpp di leen ñaanal yéen tamit. kooku mooy Pathé Balde. waaw fils de fils de Fallou Alaye Balde <laughs> Daba Ndiaye. Balde. waaw ah, Seri Maria waaw noonu la demee nag. Eh, ngi. waaw. Macky la demee nag. na. waaw waaw. <laughs> delloo ziar sant. tey lan moo la ni ci lamb ji tey. non damaa ñëw en tant que mbër bisu mag la mais nag damaa ñëw dama seen ak Tapha ku ci daan bëgg naa la. dama seen Tapha Tine. si. sa adversaire foofu la nekk. mu ngi fi ñi laa war a bëral Babacar douze combats daf douze victoire Babacar. dama koo defee. lamb wax wax indiw ñu si fii de dañoo liggéey dañoo rayante. pourtant pourtant tey tey boo xoolee laaj naa Baye Ndiaye ak Aziz ñu ne ma. boo xoolee combat bi bu jeexee maanaam ñaari mbër yi moo xam Franc la moo xam Sa Thiès la ku ci bëgg rek sa adversaire mën naa nekk si ñaar ah man pare naa parce que lamb mooy suma métier xale bu ndaw la lépp lu ma doon def dama ko bàyyi ngir lamb comme mbokk lamb mooy suma métier ku ci ñëw pare naa pour bëri ñoom ñaar ay champion la nag mais que le maire mais pare naa pour bëri ak ñoom ñoom ñaar ñëpp pare nga pour bëri ak ñoom waaw pare naa ñun ñëpp <laughs> mais actuellement nii la roi des arènes anamu moom ah la roi des président day wax président mooy président. ah Mamadou Lo. mooy président. mooy tax nga wax loolu. mais Mamadou Lo mooy roi des arènes. mooy président. yeneen mbëri ay ministre lañ. non non gouvernement bi fee la ne parcelle. eh non non. déedéet non non attends attends non non non non dañ koy tas. ministre de l' intérieur bàyyi ñu tas ko rek. non non duñ ko tas. ki mooy ministre de l' intérieur. Fra mooy intérieur. moo yor wàllu wàllu kaaraange biir réew mi. kaaraange biir réew mi Antoine. Antoine Diop. <laughs> ndeysaan am na solo. لولو امنا سلو اميل فرانسوا غوميس mbës ziar naa. Babacar bu ñu doon ziar namu naa la. mais mbës Thiat Daouda Fall. Thiat Daouda Fall ci kanam la jëm incha allah day nekk roi des arènes dina daan keneen maa la ko wax fii la day liggéey am na jom am na lépp te yàlla def na famille mën na ko waaw mën na famille. géej waay ku fa dàqul bëri dàq fa bëri à part waa la ngay dë nit dàq ko fa bëri lu mu mën a sax a dëgg sax bëreegu ko. mais gis naa benn moment a Faye di koy dóor. waaw Coly Faye fa mu dóor ko pour mën am lu pour mën a jàpp bëre xam nga Babacar boo mënee bëre xeex dana sonal mais jéem a jàpp bëre daan rek mais ba mënee bëre xeex tardement la waaw. kontaan ci yow gaay eh, grand combat la grand sunu yaay kena la maa ngi lay mana yaay boy? maa ngi sant yàlla. maa ah. ma ne lay jaar yaay booy mbaa yaa ngi si jàmm. ziar man tam. maa ngi ziar nga kan nga man dama faral sax di mais Abdou bokk ak ndey ak lu ma ak sama nawle yi ma àndal kon loolu moo tax ñëw ci làmb waaw Malamine Bakary baayam bu baax bi tubaarkalla macha allah alama jigéen jaxu Ali Boy Mister Sambay Naar Douare Sambay Naar coppati Sambay Naar loolu moo nu tax mbokk baay Masata ak Babacar Ndiar ajatu xuja goy Jóob di yaayam tubaarkalla macha allah loolu moo ñu indi tey ci bis bi ñu am jom borom iwul j'adore borom ceebu j'adore am jom lool nangoo liggéey lool borom alburaax loolu tax tey ma ñëw ci ne kenn dans le amas Boy nya eh, amas Ama Ama balé nga xamné moy rakam lepp di Pikine lepp rafet na. cee làmb bamba lay bax goor la bu doon lamb jigen sax jeex na bamba. Ah, eh, anak anak bi benn sa anak benn sa anak ay na sa ya. ay lamb ana ana ay rasam moom ana ay rasam. ana ay rasam bamba. Sané ngay gis Eumeu Sène tuus na tuusu Pikine tey. Doudou Gaye. waaw fay naa la. waaw suñ faalu rek. mbégte rek xam nga lamb moom feet la si ñun quoi. bilaahi. waa léegi loolu jaaxaluñu. suñ faalu rek yàlla yàlla suturaal kese. bilaahi ah.

ndeysaan ndigal jàpp na wës bu mu da koo bëgg a xar mais wës ki ngay bëree la sol na ko moom wës jàmbaar mais ndigal ba tey mi ngi jàpp ndigal wës jàmbaar ndeysaan bëri nañ cinq minutes ñëwaat wës crampe ñëwaat oh lu mu bëgg war a ndigal lu mu am na luy xeeñ am na luy xeeñ ndeysaan Weuz Diambar ndigal Weuz Diambar ndigal ndeysaan Weuz ndigal da koo xañ jàpp bi Weuz Diambar Weuz jàmbaar ndigal jàpp na moom Weuz Weuz jàmbaar ndigal ndigal mi ngi dóor suuf sol na sol na ko attention moom waaw waaw Weuz jàmbaar na ndigal lay la xëy la Weuz jàmbaar na ndigal jël bu rëy tànk bi tànk bi karampanatina lay la xëy la la ndigal ndigal ni mu daanoo daa metti la lu xew ndigal ndigal am lu koy metti xalil ndigal am na lu koy metti en tout cas géejawaay neex lee guñu xalil xoolal ma wës jàmbaar moom it tànk daanu na moom it ñaari jéeli ci si waa la

Bamba Eumeu ngi noonu toog ànd ak sérénité bu mat sëkk cee cee làmb Thank Thank you. Fetali runkum nañ daje Bamba Coly Faye ma ngay door Coly Faye ma ngay door Thiatou Daouda Fall Thiatou Daouda Fall ma ngay wut ca gaña la Bamba cee làmb Coly Faye Thiatou Daouda Fall Thiatou Daouda Fall samp na benn bëtu oomam ñu ngay bëre cee làmb ji diggante Coly Faye ak Thiatou Daouda Fall bëre Coly Faye Thiatou Daouda Fall Bamba Coly Faye Diatta Daouda Fall génn nañ génn nañ saaku yi Coly Faye ak Diatta Daouda lamb Coly moo ngemboo ngembulu vert li Diatta Daouda Fall moo def ngembul lakayos li ay lamb Coly Faye Diatta ñu ngay bëre Bamba Coly Faye ak Thiatou Daouda Fall ci làmb Coly Faye ak Thiatou Daouda Fall la ñu def Bamba ne woon nañ ne ne ne noon woon comme daje de xam naa ne ne noon woon daje waxoon nañ dinañ bëre dinañ xeex waaye loolu lañ def Bamba loolu am nañ combat bi combat bi neex na te jeexagul Coly Faye ak Thiatou Daouda dañoo jàppante Bamba Caatu Daawda Fall nengeeg na kolifay Caatu Daawda dugal na benn loxo ba ca gaña ba kolifay si téere yi la jàpp roofoo nanu Bamba ci diggante kolifay ak Caatu arbitre ba tas tas na làmb ji Coly Faye Thiatou Daouda Fall ñi ngay lewtoo Coly Faye moo ngembo ngembo lu fetri bi noonu am lu lu mu def si ginnaaw ah Thiatou Daouda Fall dóor na Coly Faye cokkaas na ko Bamba cee làmb Coly Faye daaw Daouda Fall dañoo ñemente ñaar xale yi cat Daouda Fall dóor na waaye dalul ñu ngay lewtoo Coly Faye jaadu Daouda Fall ñu ngay dóorante Coly Faye jaadu Daouda Fall jël nañ Coly Faye caatu Daouda Fall daan na Coly jël bi rey na Bamba Coly Faye da caatu Daouda Fall kal ko xamal soo ko jàppee laa mu jeex. Ah, ci biir combat bi amoo si jafe-jafe kaawoo. non non. jëloo coup la man doom mbër laa. rakk mbër laa. ba ma nekkee xale laay def boxe. kaaw ah, ku ci des. a ngi cey làmb mbay guy gi jàpp na ñaari geñew jàpp na ca ngembe ma ngi koy kal mbay guy gi maar la mbay guy gi leen wan ginnaaw cey làmb ma ngi koy jàpp mbay guy gi maar la baat da ko bëgg wër nomb mbay guy gi maar la wër na ko nomb wër na ko nomb waaye maar la daaneegul cey làmb mbay guy gi maar ñanu na ko ba biir weex mbay guy gu ak marle ñanu ko o oh, mbay guy gu yanu marle ba biir weex mu tegaat ko cey lamb marle génn na si cey lamb laa ilaha illallah mbay guy gi am na penalty rate ko lii bëgguma ko ci lamb. waaye tey Marley la indi détermination bu mat sëkk. loolay lamb ndax Marley fu mu toll nii ay raxam dañoo bëre daan faaw mu daan ñibbi na ñibbi géeje way. waaye tey mbay guy gi la mu waxoon la def nee na ko dinaa xeex dinaa bëre. mbay guy gi de pour man tey de dana doon turandoom guy gi turandoom ki mu ki mu toll fi yanu na la ba ci kaw dóor ci suuf. waaye war na ko ndàmp pour man da ko waroon dóor ay coup wàññi ko waaye Marley ngi doon xalaat. mbër soo ko waree ndomb doo may mu xalaat. loolu la looloo ko ci génne. looloo ko ci génne. mbay guy gi maar la. ñu ngi bëre. maar daa ngay mbay guy gi jàpp na a teg. jëlaat na ko jëlaat na ko ni mu ko defoon ni mu ko defoon ni mu ko defoon ni mu ko defoon cabaxal cabaxal cabaxal wala jëlaat na ko jëlaat na ko. ay waay ay waay ay waay lamb yenu na ko daan na ko mbay gu gi daan na maar la jël bu rëy mbay gu gi avec la manière bamba mbay gu gi daan na maar la lii maar la ma deux fois mu gën si ba cee dugaat loolu loolu da koy day ñaar combat bi lamb bamba ci diggante mbay gur gi mbal la Eumeu Sène Bamba daa mel ni pare na mi ngi si dernier réglage Bamba Eumeu tey détermination bu mat sëkk laa Bamba cee Eumeu Sène seen noonu suñu bokk internet cee làmb Eumeu Sène daanaka pare na Bamba cey làmb ñu ay butéelam cey làmb ma ngay sangu ma seen a ngay sangu defe naa ni waa Mbaaw ak waa Pikine kenn waa Bawol kenn waa Medina kenn noyeetul cey làmb yéen a ngi seen ëmër seen noonu mi ngi si dernière grâce pour waaj a dem ci géew bi di ko xaar ay jours tey agsi na ay waxtoo des fi mu toll nii. wax cee làmb ma seen a ngi noonu bamba ma ngay dugg ca géew ba cee làmb ma seen ngeen am noonu ma ngay dugg ma dafa mel ni pare na ma ngay dugg mu ngay dugg ca géew ba cee lamb ba ma tey Eumeu dafa ànd ak waaye moom lii la yàgg indi ci lamb cee lamb. da gis noonu gars di ñaan noonu Omar. waaw Omar di ñaan. Pam Ngom mooy ñaan noonu. Pam Ngom mooy ñaan noonu. yàlla kam yàlla ngi ñaan noonu. après. bàyyi ko mu dugg. nee la wàllu teen la ci pind ba ngay dugg ak lu la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg dal lay nga dugg cee lam bamba ëmmaa ngi noonu di dugg bamba ëmma seen a ngi noonu pare na def ngemb bu vert blanc cee lam délégation monsieur le ministre ci lam ci lamb Bamba ma ngay def dernière grâce yi xar fa xufe ci lamb waaw maa ngi ci dernier rek laaj. waaw. lu ne fi am. wallaay wallaay wallaay. ma seen a ngi noonu pare na. ñu ko daal di daal di dugg ci biir bu la la ko wax. mu ngi simi daal cey làmb Eumeu Sène pare na Eumeu Sène pare na nee naa la pindum teen la wala teen la ci pind ba ngay yem fii la ñuy dàqali ko que le maire gañ ñu bëre ko ci fulak ci fayda ñu ay weer tey jii bis baa ngi nii ñëw na ay simili moo gi des mu jeex waaye nag Bamba bis dootu ko dépassé waaw gëlëm réew kañ la espoir la ndeysaan lu waay lu waay ñoo wax nga ko sa morom waaye tey lépp di lee si kanamee su neexee yàlla ma seet noppi na ñu ngi dugg ci biir géew bi dafa di nopp duggagul ci biir géew bi moom oh mbokk yi la pression monte oh cey làmb ama dugg na bàmba man seen a ngi noonu bàmba ci dernière bouteille léegi nag monsieur le ministre maa ngi bamba ma ngay duyoo suuf sa xaw sunguf doy na waar cee làmb ma Eumeu Sène a noonu ñu ngi toll ci présentation yi cee lamb Eumeu Sène a ngi noonu vert couleur u la de moom waaye gars yi nanu xajalante rek liggéey mu rafet ñu nag police yi on est eh, ensemble ñoo far Modou Mbaye sunu frère la Modou Mbaye notre frère ah way ah way Modou Mbaye xaw ma lu mën xew daal mais gis naa sëst bu rafet kot su bële ngay dégg gis muy dem mooy kot sooma seen mooy jigoo moo ñëw fekk si mbay ndewaan ci baa bi nuyu ko waaw Seydou man maa ngi ci géew bi

ay way arbitre souffle len combat bi wala ñaari mbër yi e pareegul Mathiang ci bir Sitor babakar Veslas Malik Ngom la gisul tay nday ndaysaan léegi wax ji jeex de Pape am na koy waxanteeg Eumeu Sène fere di ko yedd di ko yeb di ko naap kot su kanji la kot su kanji kooko ko doon ci wàllum box bi xam naa da koy wax position bi mu war a xeexe waa ndax combat bii xalaat naa xeex dina ci am ndax sàng liñ defante fii maa la mën a waatal ne buñ dóorante woon kenn dina toog loolu moom leer na ma pétard ya tàkk na de arbitre day souffle combat bi de. laa ilaaha illallah ba fay ba fay. ba fay. ba fay. Bafai fay pétale na Baye Events son lumière leen oh quelle beauté quelle beauté Fatma Dia c'est beau ça c'est beau c'est très très très très beau c'est très très très très beau c'est tellement beau c'est super beau avec Baye Ndiaye Evans. c'est extraordinaire c'est incroyable ah oui mais à on félicite le groupe Alborach parce que aujourd'hui il nous donne un office très important dans la liste sénégalaise entre Tafatine et Amassène le leader de Pikine Tafatine et le leader de Bawal Tafatine aujourd'hui nous sommes That's a fait pour la way Fatma Dia. ah way way c'est arène nationale. mais waaw Molière ne ko mu dekki moo gën Molière dekkil lamb bu ca góor nekkul Ibra Mbaye arbitre baa ngi ci géew bi arbitre baa ngi ci géew bi arbitre baa ngi ci géew bi Sitor a ngi taxaw Macha ngi taxaw cey bii combat nuyu naa képp ku may siifur wala képp ku nuy siifur ci Dakaractu ñu ngi leen di wa bëgg a présenté faw ñu présenté leen arène nationale tey bëri na nit Eumeu Sène déedéet Bombardier Eumeu Sène fii la daane Bombardier bëre fekk la bëre fekk Lac de Guiers gañe fi Boy Niang ak ak ki nga xam ne mooy Bombardier ñoom ñaar boo xoolee ñoo bokkuñ mu a bëreel muy Bombardier Serigne Dia Bombardier le grand champion depuis ay waay présenté leen ñii pour kan pour kan a yaaw yàlla yaayam génn àddina o oh, yaaw sama xarit ba yaaw sa yaay jooju yàlla na ko yàlla jégal xare ko aljana bii day ñaari yi la présenté waaw loolu am na Eumeu Sène waa Pikine ngongu Tapha Tine waa Bawol a ngongu boo xoolee Tapha waaw waaye Eumeu Sène daa yàgg bëre ki njool combat bi arbitre soufflé na combat ba laa ilaha illallah vingt et une heures quatre minutes ci Dakaractu maa ngi nuyu internautes yi jàppante nañu loxo ca kaw Tapha Eumeu Eumeu Tapha Bawal Pikine laa ilaha illallah maa ngi nuyu sifra wa jobbe bëgg Touba ñu ngi baram ñu ngi baram White House ci ñaw yu rafet ya elas be baram, ñu ngi tamantey baram ñu ngi tamantey baram dafa talalul ay loxom dafa bank lo dafa bank loxo bi la ilaha illallah dafa lu mbeug avancer songu mi na xalat na bis bo amé Tapha sànni na góos Tapha sànni na góos ama ama ama laaw na ama laaw na ama ngi dóor Tapha Tine ama ngi koy dóor hey laay Tapha ama seen dóor na ko mu daanu kawo ama seen Tapha Tine xeex na ak moom Tapha Tine kawo tawan na de laa ilaha illallah ama seen xeex na ak Tapha Tine na ko ardo laa ilaha illallah ama seen yóbbu na Tapha Tine ardo eh lamb cey lamb ba fay lamb lamb doy waar oh daa xeex ak moom daa xeex ak moom waxoon na ko de noon na man boxeur la xeex laa gën a mën ko bëre noon naa leen bii combat day metti la ilaha illallah Tafa kay waxuma la dem ardo waaye Tafa la mu jël daa diis coup bi mu jël a métti kawate woon na sax boo xoolee doolee ko fa téye doolee ko fa téye ama seen ma seen daanaani naanaani bërekat la ama seen daanaani bërekat la Eumeu seen yóbbu na Tapha Tine Ardo cey lamb waaw parce que dóor yi Tapha lañ ko doon xaare waaye daa mel ni day xool nga kuwa laa ilaha illallah hypercut la ko dóor Tapha bosam mooy Eumeu Tapha daal di jaayu xaw a dóor benn sënu trois appuis Eumeu bëgg koo jett foofu Tapha jóg ak moom dal di gin ba bëgg ko wër dafa daw gin mungkin mu ngi naaj ci de mo batay mu ngi de cey bi combat bi komba, ma sen door a dal gis na legi kot su kanji wax ak mom balaa ñoo soufle mom ama sen te kanji dama ko xam ci walu xex kanji mako xam ci xex du ko subu laa ilaha illallah gis nga korant jàppante ba ca kaw laa ilaha illallah oh nga lool bu daloon mu garaaw de dafa yàgg na ci docteur yi de dafa tit ci na de waaw ku daan yóbbu waate Ardo te ñu yóbbu la Ardo yaa yóbbuwoon Bombardier ak Elton Ardo Tapha Tine waaye tey Eumeu Sène moo la yóbbu Ardo waaw arbitre day soufflé waat laa ilaha illallah cey boobu lépp combat Pape Faye fii ci Dakaractu Eumeu Sène mi day père Max Mbargane la ma waxoon du dañ de noonu na ma des mag ñila la de te mag nag xale bu ko bëggee lekk faw mu xam na muy tooge waaw waaw te boo xoolee ci entraînement ama seen mi xam nga ne liggéey na Tapha Tine liggéey na cey bi combat bu ñu xeexaatee rek musiba am man maa la wax lii bu ñu xeexaatee rek musiba am wax naa la ko sànq seen koranteb sànq boobu balaa arbitre bee soufflé noonu naa la bu doon ci lamb le leen man kenn mën na see waaj moom lañ defante waat dafa tuuri na ama wàcc ama nee na ko déeréet la ilaha illallah ama seen da dig der man maa leen ko wax dafa dëgër këng te dama koo yàgg a seetlu di ko wax bëreekum njool da ko arrangé de dox ci kawam yombul moom Eumeu Sène ndax daa yor benn arrêt de bu doy waar waaw waaw te arrêt de boobu saa yoo ko jëlee salaam bu mën naa yàqu mbaa nga bëri loo bëgg ko na bëre dafa tin nag cadre ko dox si koom waaye Eumeu jógul fi mu ne dafay jógul fi mu ne gis nga gaawaay bi soxla nañ ko ci de gis nga ama seen mbaa du daa ci combat bi dafa mbaa ma sa amul mbaa ma ëpp gis nga day dugg sa garde dóor la day dugg sa garde dóor la ama daa bëgg a xeex ak moom korante dinañ gaañante de tib na tànk ba da koy dëj ey tafaatin mbaar na ko tafa mbaar na ko da koy daan da koy daan ama doo jóg tafa ama seen daan na ko doole doole doole ëmma daanu nga bu yàgg daanu nga bu yàgg ëmma boo duggee foofu daanu daan na la jël bu rëy rëy seen oh ëmma seen waaye tafaatin waaye tafaatin daf naa daan nga ko naqaree daan daan nga ki daan Balla Gaye daan ki nga xam ne moo daan Bombardier eh wax naa la ko Pape Faye naa la du yomb déedéet booy kayre waxoon na ma ko noonu na ma bala ñoo bëre xeex ba daa ñëw tafa mbaar ko laa ilaha dugal ko ci biir hop hop lu xew vaar vaar xew wala a ah, kon ñu tooy ñu teylu Sitor a ngay ñëw de vaar ngay ñëw de luy xew bëre waat wala lan bërewaat wala lan combat ba tas na tafaatin daan na ko de a ah way looloo am de tafa ngay daanu hop hop hop oh, tafaatin tafaatin tafaatin def na affaire déeret waa Pikine fan yi xaw na métti xool njaaytin rakk ji ñoom ñaara ngay waxtaan ndeysaan hop hop hop hop da ko ama fa mu baaxul jël ma ma xool Cheikh Omar géew bi laa bëgg a dem seen a ngi noonu ngeen gis ñu ëmb ko Tapha Tine daal na ëmb seen jël bu set par décision arbitrale VAR moo ko joxe Sané nga noonu toog am na lu ko naqari tey Doudou Sané nga noonu toog te am na lu ko naqari trop Doudou Sané nga noonu toog am na lu ko naqari Bamba lu ko naqari tey cey làmb ñaari ndabay dugg waaye benn ay génn Bamba Doudou Sané am na lu ko naqari lool lool lool lool lool lool lool sport nag am di am dengi noonu am di Moustapha Ngongu am di Moustapha Ngongu sa Touba sa Touba sa Touba ko yóbbu ci géej bi Sa Touba nga koy yóbbu ci géew bi Sa Touba nga koy yóbbuwaat ci géew bi Sa Touba nga koy yóbbuwaat ci géew bi may leen kii may leen Sa Touba Sa Touba nga koy yóbbu yëpp leen tàqal Sa Touba de Cheikh Omar li mu jël métti na de Cheikh Omar ah Cheikhou li boo ko jëloon gaañu lamb métti na de ay kuy bakkan lañ lay dóor mbër jàmbaar koy doon la police kay kay jaaw do leen Ndiaye lu mu bëgg Ndiaye lu mu bëgg dafa nag non non am fomp xam na lool xam na lool xam na lool wi mo taw sipal sipal ma nga dénk ko yóbbu Papa laa ilaha illallah Ndiaye nga koy yóbbu de Barajon Barajon Félix waaw ñoo ko bokk yow ci ndam li nga bëgg. déet déet déet félicitations. non non non bawal laa teg. ñëpp nangu nanu nangu rek tey. non non man man sama non non man micro laa xewle rek. lan laa la waxoon fii. ay yées lan laa la waxoon fii. xam nga Eumeu Sène xam nañu li muy bëre. yow xam nga ko. li mu bëgg mooy déplacer xelam Tapha mi ci kaw pour Sonko. ki nga xamante ne nii nag lii la bëgg. te yow nga xam ne lii lay bëgg. te da nga koy encaisser pour jàpp ko. parce que man jàpp gi rek a doon doon sama problème. mais benn moment dem na tibbi tànku Tafa. loola la ñu ko wax mooy yaa ko sut bu roos sa loxo ci suuf mënoo koo taru heure bu dawee di jël si sa tànk maanaam bànkal sa tànk tey ci xotti taat sa loxo mën na ko basat ko bu dëkku mais bul def leneen waaw moom nag dafa xaru ci combat bi pour song loolo daa mu am loolu parce que lee sax mu am moom da koo bet parce que moom song la bëggoon. xeex na ak moom parce que kii lan moo leen boole ko kii lan moo leen boole ko non kii daa dégg bawol mu dégg bawol mu bogal ma boppam ma bogal ko sama bopp mu doon doomu bawol dara mënunoo tàggale ci àddina kii nag saa tuuba non bawol la dégg te man sama xarit la man amna naa xarit yuy ànd ak Eumeu Sène Mansour Diop am xarit yu ànd ak Baye Mandione rek rek sama xarit la Balla Gaye sama xarit la lamb lamb la ñun ñi ci nekk nekk ay mag defar lañu xam kenn du tax ñu daw kenn parce que kii denoo bokk loo xamante ne nii bu làmb jeexee it dañuy continuer Tapha Tine la traité Modou loo la traité te Sa Touba des fi ak Bawol ak ak Badajoon mii waaw ah, loo wax kii sama lépp la sama papa sama xarit la doon ku ma yéene bëggal ma boppam daf may woo du wax ak man lenn lu intérêt nekk lépp sama intérêt rek di ma wax fi may teg sama tànk ni ma war a waxee ak ni ma war a dundee te xam ne adduna yàggut kàddu gu rafet nay jënd sa làmmiñ saa ne loolu la may wax ku la tooñ it dee ko baal tabul bul tontonte kenn mu doon nit ku baax man nag la ma waxoon laay waxaat man bawol bawol laa Touba laa dëkk Tafa ay nitam samay nit lañ soose maa ne ba biig ci guddi ñu ngi toog nekk ma ne ko soose mu naa ma ne ko barke Serigne Touba ëmma seen moo jekku làmb ji waaye du ñu daan billaahi wallaahi waaw ñiy xool lamb ñi xam lamb ñëpp xam nañ ne lamb ji ci loxoom la féete woon waaye waaye waaye mais lu ko dindi ndamam ci mbëkk bi la ko jëlee bi muy mbëkk tafa ci la jël ndamam oh, mooy songoo ma waaw moom boo ji nga bis boo ko moomee ba nga leer na yaa ko moom da ngay daw coow kon Tafa da koo provoqué pour nangu affaire bi parce que du provoqué sax Tafa daa am lu mu doon bañ mu def ko ko moom moo waroon a sérieux mbëkk bokkut ci lamb li mu bëggoon daal yomb na yow xam ko li mu bëggoon juumloo Tafa mu kese loolu la bëggoon nag door na Tafa arrêt bu metti ba Tafa dem ak loolu moo àndal tey tey bis bii nii tey ndamul Tafa doonutoon ay door daan la woon mais Modou Lo entraîneur Tafa nee na roi des arènes te la xam-xam laa ak Modou Lo sa Touba nooy def yëgg bëre dama ne la dama ne la dama ne la Modou Lo bu doon bëre sama baay sax Modou Lo lay àndal waaye man bawal laa dëkk ndax Tapha Tine dama bëgg xam nga lan laa bëgg dama bëgg am na question yoo xam ne am na question yoo xam ne posé ko saa Touba maanaam jaxase koog adduna la. saa man duma la jaxase ak adduna déglu ma. xam naa la bu yàgg man duma jaxase ak non dañ may am na loo xam ne soo ko waxee duma ko nangu. non bala jot dafa am lu may wax man tamit man duma jaxase kenn kenn. saa Touba dafa ànd ak Modou Lo ko ci lamb. tey ma ànd xelam dafa ne ci roi des arènes roi des arènes Modou Lo ko yor. yaa ngi dégg question bi ma ko laaj question bu valable la. da ngay déglu Modou Lo dafa dafa ne ci combat ñun dañoo a bëre Tafa tay la woon lambam xam nga lan lañ nekk fi ñu toll nii savourer suñu victoire bis buñ ca yeggee danañ ci wax incha allah. kontaan jërëjëf jërëjëf. Omar maa ngi kontaane ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon topp Dakaractu à travers tey sunu kër gi nga xam ne amuñu lu moom muy Dakaractu di ñaan yàlla jàmm ci Sénégal waaye man jàngat bi ma def ci combat Tapha Tine ak Eumeu Sène boo xoolee tey xeex bi Tapha Tine lañ ko joxoon ñu bëree baree bari ñi doon jàngat waaye dafa mel ni affaire bi daa safoo Eumeu Sène moo ñëw tey ci xeex bi parce que gëm na Eumeu Sène bërëm tey pour mu bëreeg Tapha Tine li mu bëgg il faut mu xeex ak moom mais Tapha nangu ko répondre ci xeex bi parce que li muy bañ mooy Eumeu Sène sàcc ko yegg ko fu mu ko warul yegg parce que Eumeu seen Cheikh Omar maa la koy wax ndaanaan kullu fardin la Eumeu seen dafa mën a bëre yaa ngi dégg boo xoolee mën a bëreem googu nag Tapha Tine tamit ñi ko wër ay expert lañu bala jon Zallo mbay Diouf bay Bada Sung ah entraîneur am Mbaye Ndewane yaa ngi dégg ñoom Ili Sukay ñoo ñëpp wër ko di ay bawal bawal jaar ci bëre xam bëre ba ci des tamit ñoo xam ama seen xam li mu man teel koo gis moo tax tey Tafatine bëreek moom ni mu bëree ak moom boo xoolee ama seen njool yi mu bëreel tol ni Tafatine sut ko ñëpp ama da leen daal ay jël ay jël yoo xam ne top 5 la jàll mook su lay dob fii la woon moo bombar ji deux fois mook Balla gay numéro 2 loolu nag moo lay wan ne ama seen dafa am tu bëree waxoon na ma ne Babacar ma ne ko ah mu ne ma mbër saabun sur yaram yi laalante xam naa ni ma lay daane ba pare ama seen te loolu am na mais tey yóbbu na Tafa Ardo te normal pour Tafa Tafa Tafa tey monsieur Omar pour mu daan combat bii il fallait que mu encaisse kuy Eumeu sen boo xoolee bi mu jëlee coup bi yaa ngi dégg li ko dimbali mooy entraînement dafa baax génn na foofu effacé wu Eumeu di ko capté pour wër bi mu dooree senu bi Eumeu bëgg ko dooraat góos fekk mu ngi ci suuf bi mu jógee Eumeu di ko lambatu pour bëgg ko war a ndomb tafa effacé wu daw génn foofu day nekk vide léegi nag ci la li nga xam ne ni moom mooy nàcc nàcc bi feeñ arbitre dag combat bi ñu dem ardo bi ñu demee ardo dellu siwaat ñu taxawaat fi taxaw ñoom ñaar dér kenn jógul fi nga taxaw ñuy lew toon ndànk di ko xoos ama di wër la ama andiwaat bagaar boobu yaa ngi dégg Seex Omar ama andiwaat bagaar boobu tafaatin tamit di éviter bagaar bi parce que mu ngi sóor que ni ama seen bis bu tibee sama tànk te ama kaay mi wax la bu tibee sa tànk normal da lay dëj moo tax nag bi mu demee di jëli tànk bi tafaa sóor na ko bi mu ñëwee tafa banque tànkam bës ko yaa ngi dégg ba pare am ñaari ngemb yi bës ko mu dugg foofu mu def trois appuis mais affaire bi jeexagul. ama tamit bàyyeekul mu nga yotu tànku tafaa bi mu lem nii ci suuf yaa ngi dégg pour wala ne ama seen mu ngi ci bëre bi waaye tafaa tamit mu ngi ànd ak prudence ak di contrôler ba ni mu ko bësee ànd ak moom da daan ko jël bu leer nañ man nee na sax est ce que jaroon na dem VAR mais nag comme arbitre se di terrain boo gisee lu la doyul kom VAR am na fi dañuy dem consulter VAR bañ demee VAR ñu dëggal ne jël bi arbitre bi joxe moo am kon tafaatin manam dama ko yag di wax ñi nan tafatin xex la man tafatin bëri la gëna man ka xex dama ko setan mu mbapat setan ko mu contact lol na ci nit ñi bayyi xel tafatin da mën a bëri de moo ko El Hadj Diouf stade Mar Diop keroog ba ba jeexal ak mom tafatin dafa di jaax melni kuy teud bim ko la ilaha illallah Mok jikini Junior dafa mën a de Cheikh Omar lu melni ni mi di Tafatin lay wax tafaatin kat la il fallait que nit ñi xam lolou waye ama sen nak da du information mooy saxaar gi ñëw na à l'heure Eumeu Sène père Max Mbargane moom mi déggi wax te xami wax nee na ma Eumeu Sène desu mag ñi la ma ne ko wax nga dëgg ndax tey li mu fecc fii desu mag ñi rek ko mën a fecc li mu fecc gu ne xamu ko rendre na hommage bu naa ma rasta xam nga bu naa ma joom rasta yow xamoo ko de rendre na hommage ki nga xam ne nii moom mooy maam ñambaan joom xam nga ko ca Kaolack xamoo ko de waaye rendre na hommage ki nga xam ne ni moom mooy Manga 2 le roi des arènes mais rendre na hommage Falaye Baldé ca Gintéja loolu nag maanaam la père mag si noonu ma desu mag ñi la effectivement ëmma seen desu mag ku ko bëgg daan di liggéey de ëmma mii daa indi état waaye nag kon Sa ak Franc damaa jàpp ne ñaar ñii nañ ci jox ku ci ne ken nañ ko xar ci digg bi Sa Thiès jël kii Franc jël kii rëg-rëg nga ca Bombardier Franc ak Sa Thiès nañu leen jox ñii Baye Ndiaye defal loolu ak Albourakh FM Franc jox ko kii Sa nga jox ko kii Sénégal jëm kanam Tapha Tine Tapha Tine Tapha Tine Franc Tapha Tine fi mu nekk nii boo bëggee dégg-dégg xelam li ci nekk mooy roi des arènes te itam nag mérito na dafa war a bëri roi des arènes war na ko jongante ji mais kim ko ki nga xam ne mooy roi bi nag dafa ne ci combat waaye loolu terewul tamit seen combat mën naa taxaw combat Tapha ak Modou lu mën a taxaw la et tamit lu jaadu la parce que Cheikh Omar kaay ma wax la de combat jànq lay doon waaye Cheikh Omar bëgguma mbër jëm ci combat combat bi ñu koy waaj a soufflé ngeen di daw bay bëgg xeex suñ ko defee rek na ko yàq combat am loolu daa feeñ ci combat bi biñ dawee daje fële ba bëgg a dóorante foofu la am ku bàyyi ndamam li ma lay wax lamb laa lay wax Eumeu Sène bi mu ñëw ci lamb ji walaay jekkoon na waaye lamb yaa ma gën a xam lamb daam lu mu lamboo waaye Dakaractu la Babacar la Cheikhou Omar paa Faye ah Lin Ousmane Bamba Omix Omix félicitation Bamba liggéey bi nice na kon Dakaractu encore une fois équipe la mais Yves jaw yàlla na sa jàmm yàgg Demba yow tamit ñu ngi lay bëggee coordonnateur yaa ngi coordonné lu nice mais vraiment gars yi daal. waaw yaama ma xam liggéey rek mo woor mais nak faw mu nuyu sama soppé yi 100 babakar bi ma ngi leen di bëggé sama gaay ma ngi leen di bëggé ñom Awa job ah maw Modou mbay nak tay gis nañ lu lu arrivé tay, xamuñu eh, man xaw ma mënu ma wax ne li mo andi problème bi parce que fi ma fekk la yaay dégg mais Modou mbay <coughs> nañ ma baal encore une fois suñu frère la suñu confrère la tay tam mu ngi liggéey liggéeyam mais nak des fois ay incident day am xam nga lu man luma ma wax. moy police yi ak ñun la presse wala ñun sénégalais yi ak police yi police yi ay sénégalais la ñun ay sénégalais lañu na ñuy waxtaan rek diko rafetal quoi parce que Modou mbay liggéeyam lay def police yi seen liggéey lañuy def kon ku ci nek rek bo dégloo sa monom jox ko ci rek pour man li ci dess du metti quoi Sénégal yalla fi jamm yag mais Baye ndjay alburakh no Baye Baye kenn du yow mais ko baye fi am tay mbay guy gi waxoon naa leen comme mok mook armée xam nga bëre dol da ci bax Cheikh Omar ñëpp biñ combat bi taxawee dañ ne woon mbay ah, marle ko dàq bëre waaye Cheikh Omar doole doxul jàmm mbay dafa ñëw liggéey doole ñëw imposé ko ah, marle daan ko kéwél la nga boota baaxul alburim njoot am njool la boo ko boote bu la yokkee sa boppay jiitu loolu la la daane ca daaw da fal kulifay loola daan xeex baa neex nga continuer booy bi ne ci suuf di bëre daan la jël bu rëy ndigal was jambar rohon nako day mbapat lambam de ko rirun mu dugat tial bi mbapati ba ba ba lambam dootul nexa dan wos was jàmbaar maa ko wax gune te day mag yaangi deg te day liggéey was jambar malen ko wax kon tay Baye Ndiaye toñul kenn biye yi yombuna na yi ñew nañu combat yi jeexna dakar ak ti woné nako waaye Cheikh Omar na def jamm ci rew mi waaye barke Seydina Muhammad, Aliou sal taal seigne sëñ Babacar si mang koy beggé waye wa Petersen Cheikh Omar suba dañuy dem Petersen suba faw ñu jiitle ba Petersen du mën a ñàkk loo bëgg jàllale na gaaw ñun jaaykat yi jaaykat yi nañuy dawa yërmande yàlla tax wóor na yàlla li ñuy ñëw ñu ñuy paasloo bu fekkee ñun dañ carrément am nañ li ñuy paasloo bu nee ñu sax carrément benn ku joxe benn 2000 francs ki joxe 2000 francs ngeen boole dugg ngeen dugg mais dañuy yàgg si biir sonn depuis deux heures si ngoon ba léegi maa ngi fi deux heures la ci non foog nga wax ci Baye Ndiaye non non nga waxal ma ci non dafa am da kaay nii kaay nii non dafa am loo ma loo ma war a fadam ci lamb koy wax ci lamb non waaw nga waxal ma ci Baye Ndiaye ak organisation waaw mais xam nga tey jii waaw euh, Babacar fadam mon frère sama xulóowal des fois nag ñu ne ñàkk maak yow du mën a ñàkk des fois nga ne ma sa gàttaay mënta ñàkk baas isappale yaa ma ko tudde waaw ah, alaaji sàppale ca Banjul <laughs> <laughs> mais Babacar mais ñoo àndoon Gambie waaw ñu ngi félicité réew mépp nag yaakaar naa ne lamb ji combat yi fi gis yëpp dañ ko waxtane te ñu ko waxtane ci alburax. yaa ya te moy dañ koy waxtane bay jël terrain te ko ci ko table ji ne Lamine Seck lo gis. gis Fadam lo gis. Ah. babakar lo gis. Ah. ñu andon dem Banjul. and ànd ak ku mel ni Bour li nekkon ci. ñu def promotion wu lamb ji. def nañ promotion wu lamb ci ben côté côté yu nekk. Mhm. waaye babakar yag na ko wax sénégalais yi. la yàgg wax. démb rek mu ne leen ki 5 minutes yu la lambam nekk. bu ko cinq minutes njëkk yi rëccee bu Tapha Tine dugg see di dugg ci combat moo tax bi mu ko dooree bi ma seen nelawee ba Tapha Tine sigiwaat fa la njumte nekk waaye dinaa ñëw ca place ba nu mu tudd fii Dakaractu dama bëgg a jàkkaarloog yow ku la fa non wayuma waaw euh, suba waaw sama invité maanaam sama plateau spécial bi may def ci combat bii yaay nekk sama invité d'honneur Fadam jeex na dinaa ñëw bu ko defee ñu toog pello noo do arena hebdo la ñu delloo si faram Fadam wax nga lu leer ma seen parce que ama seen na ko waa Pikine delloo njukkal ama sen Cheikh Omar jambar la de wallahi jambar la parce que limu def tafatin tay mom la ma sa gis bu ko def tafatin kon lolu nak liko ko andil moy entraîner ama sen bok ko yow Cheikh Omar dof dof xam nga ni da entraîner ba necca tay te itam mu ngi won ci lambam ya ngi deg mais nak lamb des fois bo waré perte da ngay perte mais Pikine ñu ngi len di encourager parce que li moy sport zako ah, gagné na Pikine la jógee ya ngi deg kon les perdants wala ñu ñak tay seen combat la ko wona waxé ñu ngi len di. encouragé di félicité ñi nga xam ne nii ñoom ñoo gagné seen i combat Cheikhou Omar di la ñaanal jàmm di ko ñaanal wa Dakar ak yëpp waaw di kontaan sama équipe bi daal yàlla na yàlla def jàmm booy am leen jàmm teg leen fi loxo bi seen loxo wax leen wax leen Dakaractu wax leen Dakaractu Dakaractu Dakaractu Dakaractu Dakaractu ca kaw ca kanam ci lu baax merci boy aco eh déglu ma wax déglu eh, salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin waaye maam maram njaay réew maa ngi may soow te ko réew mi soow bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci